Euh, péripéties yi ñu jot a pour euh, mën a déposer euh, le dossier de candidature de Ousmane Sonko au conseil constitutionnel yaakaar naa ni lu ci ëpp yéen journalistes yi xam ngeen ko suivre ngeen ko parce que jël ngeen ñu plusieurs fois en direct donc di confirmer rek yaakaar naa ni xibaar boobu déjà jot ngeen ko que ni Ousmane Sonko. Euh, comme Yeren candidat déposer déposé un dossier au niveau du conseil constitutionnel donc euh, avec euh, pièce yëpp yu pour gën ko donc effectivement nous depuis le 29 septembre le 29 septembre moi le où jour nous commençons commencé faire parrainage donc nous euh, présentons présentons comme euh, candidat à la candidature action mandataire moi en tant que mandataire euh, Ousmane Sonko à la au niveau de la DGE pour retirer fiche de parrainage donc nous ngeen ce Nous nous ñu Nous nous Ousmane Sonko n'est liste électorale donc nous avons jox fiche de parrainage Nous avons xam nous avons fàttaliku nous nañ ko président Khalifa Sall nous avons eu le président Karim Wad en 2019 mais en 2023 nous bañal ko Ousmane Sonko et nous tamit arrêté le ministère de l'intérieur Nous avons fixé le modèle collectif de parrainage Nous nga xam depuis le 27 septembre nous avons na euh, le fait que nous ayons le fiche de parrainage ni yow dañ reconnaître reconnaître statut candidat à la candidature donc rek avons il y le 29 septembre nous avons une fiche de parrainage comme tous les candidats à la candidature parce que le fait de le remettre fiche de parrainage le statut le faveur donc mais nous avons beaucoup de stratégie pour déposer ce dossier au niveau du conseil constitutionnel donc nous avons une buñ ci euh, lundi 2 octobre lundi 2 octobre nañu déposer suñu requête parce que si nous avons jox fiche de parrainage dañu dem saisir cour suprême ci benn référé liberté saisir également tribunal d'instance bu Ziguinchor nga Ousmane Sonko ci liste boobu pour nous annuler radiation bo la radiation, ci ay tapalé ak ay tiaxan ñu né au mois de juillet nañ ko jël ministre de la justice transmettre ko ministre de l'intérieur à l'époque pour radier Ousmane Sonko ci liste L dafa un réquisitoire en faveur de Ousmane Sonko japp ni pour mom dañoo violer droit fondamental Ousmane Sonko té Cour suprême dafa waroon arrêter violation boobu mooy maanaam DGE joxe fiche de parrainage ensuite 12 octobre bobu yakarna ni moom ci aux huissiers nga xamné sen liguey lañuy nañuy def mais gis nañ ni malheureusement ci dossier bi dañ leen tek ay jafé jafé yu bëri yo xamné galancor na sen liguey malgré que loi bi mo leen ko may ay textes réglementaires mo ñoo leen ko may ñuy ay officiers ministériels mais dañ leen manqué de respect de manière notoire donc ñu présenté wu au niveau de la DG e pour signifier leen ordonnance juge Sabassy Faye nous ñoom jotoon notification également signifier ko direction de l'automatisation des fichiers pour ñu nous Ousmane Sonko ci liste électorale comme nous avons Sabassy Faye mais ñu gis ni nous nañu commencé à ci bunt bi bañ ñoo dugg bañ avons dugg DGE bañ ñu yegg DAF malgré que on avait la décision de justice avec nous nous, parce que jour où nous avons nous ñu ne ñu Kendé la Fall néna na moom mënu recevoir kenn tay loolu lañu policier policiers yi wax ñu ci wat le lendemain le 20 octobre ñu ci wat à la DGE et à la DAF bobu tam ñu tégalat ñu beneen dispositif commissaire u Médina bi bu ñu nane Abdou Aziz Sarr ñu téye ñu fa lu yagg pendant des heures ba paré ñew ñew nañu mënu ñoo bay ñu dugg ci benn service public ba nga xam jour ouvrable et ay horaire d'ouverture ñu présenté wu fa ñun en tant que citoyen en tant que mandataire ma ànd ak huissier donc mais ñu bloqué ñu ci buntu bi donc yaakaar naa ni loolu yëpp suivre ngeen ko en direct te ñun lu ñu fa indi woon rek mooy signifier leen ordonnance juge bi nga xam ne juge Sabassy fay notifié woon na leen ko ba pare depuis le 17 octobre ñoom nag ñu def seen liggéey réintégrer Ousmane Sonko ci fichier électoral bi DGE jox ñu fiche de parrainage mais gis nañ ni dañoo bañ ba tëdd suuf bañ a appliquer loi bi daf lu ñuy naan du banditisme administratif ce jour boobu même. Thiendella Fall directeur général des élections génnee benn communiqué naan a pas amagul décision définitive Il tax joxul Ousmane Sonko ay fiche de parrainage parce que état dafa fasciné yéene daf recours Et nous savons que ni code électoral lu ci wax article 47 alinéa 4 une décision yi dañ ko war appliquer immédiatement yaakaar naa loolu ñëpp xam nañ ko Sénégal léegi loi organique cour suprême lu mu wax mooy ni recours pourvoi de cassation contre type décision ordonnance yooyu ces recours-là ne sont pas suspensifs sont demee c'est article 36 article 74 loi organique cour suprême l'air mais nous continuons, dans la légalité Nous euh, saisir le bu de la commission électorale nationale autonome Nous allons saisir le 22 octobre saisir ko pour nous, euh, jox Diggle, DGE DGE jox fiche de parrainage parce que Sénat a un rôle supervision le plus processus électoral te képp koo xam autorité la wala muy parti politique wala muy administration nga xam ne yëngu processus électoral bi Sénat mo leen fété kaw te amna pouvoir di leen jox ay ndigal Sénat bu mu joxee ndigalam euh, DGE ñep gis nañu DGE vraiment ki bu mu taxaway bu mu ci am DGE bagn le 31 octobre 2023 le Sénat jox injonction DGE mais DGE continuer ci refus continuer ci tapalem ak jaay doole te loolu yëpp tamit ñu koy wax DG ñu ngi ci lënkaloo ak ministère de l'intérieur ministre de l'intérieur nga xam moy Sidi Kaba nga xam mom moy seen kilifa parce que DG du daf dara te déggoowu sa ak kilifaam le 2 novembre suñu collectif avocat yi saisirat Sénat pour wax Sénat ne ko bi yoon comme DG daf nga ko injonction mu bañ bañ na wéyee ndigal ndi sa ndigal légui da ngay jël da ngay substituer wu manam lu DG waron daf yow mën nga ko daf parce que loi électorale bi may na la loi bu créé Sénat may na la ko loolu buñ ko dafé djébal ko Doudou Ndir le 3 novembre 2023 le président Macky Sall djël benn décret ba nga xamné décret bi teguwul si yoon remplacer 12 membres de la Sénat yépp té loolu mo ngi juste après bu saisir le Sénat ne ko yow lu DG daf jox ñu de parrainage yow le nga ko donc Sénat jëlal say responsabilité donc nous avons Sénat le vendredi 3 novembre par décret présidentiel décret présidentiel ba nga pratiquement respecté wul charte ou une loi nga nous ne nañu war a jël suñuy remplacer membre Sénat yi bu si njëkk mooy tànn nañ avons ay ñoo xamé nañ leen par parlo parce que dañu yoron ay mouvement de soutien wala mës nañu nek ay candidats di soutenir wa APR wala bok ci élection té ñooñu tànn lañ ne leen en tant que membre du Sénat respecté wuñu amna ño xamné sen ne seen mandat jeexul woon ñu remplacer leen également amna ay consultation yu ñu waron def bala ñoo remplacer membres yi respecté wuñ ko bu ñuy jël décret boobu moo taxoon ni acteur yépp nous avons le processus électoral les parti politique yi candidats yi de la société civile là Macky Sall retiré décret mais ba léegi décret retiré malgré tout am eu un recours en excès de pouvoir ba nous avons déposé nañ sur l'initiative de Ndiaga Silla. Nous avons ñu pour que ñu annuler décret ensuite le biir novembre mois de novembre 2023 le 6 et le 7 novembre sommes ñu dem Sénat parce que nous avons ni administration continuité malgré que nous nañu décret remplacé mais nous avons en tant que équipe bu avons bi ñëwul toog équipe ba fa newoon nga xam ne Doudou Ndir moo président ba mënoon na jël ay dogal pour satisfaire nos demandes. donc nous nañu Sénat à deux reprises le 6 et le 7 novembre mais malheureusement nous itam ñu jaay nous avons tegal les fa ay policiers euh, empêché ñu accès bi finalement nous nous recevoir Doudou Ndir moom lu mu wax ne mënul def dara tant que équipe bu bees bi toogul donc suñu requête au niveau de la Sénat jamono jooju fofu la yemoon ñu nek ci procédure yi parce que ñom ben objectif nañu am naka nañ ñuy perteloo temps ba ñu yobbuñu lu mooy lu ñuy woowee forclusion manam délai yu dépôt yi jot duñu am pièce yu ñu wara am duñu mëna déposer su boba Madame, suñu dossier duñ ko mëna déposé déposer kon duñu nous bok lool mo doon sen objectif lool mo doon stratégie motax le 17 novembre avant le 17 novembre déjà en mois de 23 euh, octobre nous bu sa décision de si fay bi génné en l'occurrence agent judiciaire de l'état dafon nañu un pourvoi en cassation pourvoi en cassation nous avons vidé le 17 novembre 2023 Nous gis le lu fa cour suprême malgré que l'avocat général Ousmane Diagne ait plaider won, nous rejeter pourvoi état bi parce que jàpp na ni pourvoi état bi coup, ci dara gis nañ ni juge cour suprême a finalement nous décider casser et annuler décision président du tribunal d'instance de muy Sabassy Faye Et nous avons ni malgré peu tamit nuñ ko ak parce que le juge yi juróom nañu woon mais si nous avons une décision ñeent nañu woon parce que la femme, si juge yi kenn ku ci ne peut mënul endosser décision parce que gis na une décision pas avons la jurisprudence cour suprême La cour suprême nous mu doon